waaw kay Saliou gis naa beneen daanaan nag ci stade bi ndax nee naa la tey artistes yi mbalaxmaan yi rappeurs yi musiciens yi daal maanaam ah, ah, en somme musiciens yëpp ñu ngi fi ay artistes comédiens yi ma taxaw ak nag daanaan de patin lañ koy wax xale bi nga xam ne jamono ji moom moom internet bi macha allah moom moom YouTube bi. Patin nuy naa la. waaw maa ngi leen fay bu baax a baax a baax a baax di leen bëggee bu wér a wér. dañ fay fekk si nag ñoo xamante ni jamono ji ay ndaanaan lañu ay ndaanaan kuli fadirin kenn dootu ko werante muy waa Elvision Média di waa nooy moytoo sa noonu soo déggee Sister Zeyna la puissance sa xel wala dal nga jàpp nga dégg tamit maman Aris mythomane bu bon bi mu ngi nii taxaw nga dégg na pël bu rafet awa saw tarkal la ñett ñi kenn dootu leen présenté Kajaabari léegi la ñibbi ñoom tamit ñu ñëw participer li nga xam ne mooy match amical bi am chaque fii ci stade Amadou kan lañ supporté ndax ñoom dañuy wax ñaari wax dañoo bari jikko ko ay comédien lañ mais dañ fii ñëw ni musicien lañ supporté loolu tax looy wax ñoom na leer puissance nuy naa la fay naa la awaale beneen star baa ngi nii maman Aris borom nooy moytoo sa noonu dëgg neexul ñu fekk la ci stade bi mais man gisaguma la nga joué kañ ngay joué. waaw non damay joué ci kanam damay bàyyi ba match bi des douze minutes ma dugg dugal douze bi arrêté. nga nit <laughs> match bi day des douze minutes mu dugg mu dugg dugal douze bi. arrêté waaw looloo ma fi indi. looloo la fi andi moo tax ma indi sama équipe damay bàyyi ba ñu miliyaar ah, ba daa bi des douze minutes de la fin. waaw ma dugg dugal douze bi arrêté. <laughs> macha allah ñu def déplacement dérangement daal di ñëw ba ci biir stade bi nii di seetaan artistes yi footballeurs yi ak kii musiciens yi. ak kii daal nu ma ko ci mën a waxee théâtre kat yi waaye man daal maa ngi ci ñaari camp yëpp daal maman Aris dangaa dangaa mën ñaari wax kan nga faral na leer ah xam nga man man kat laa rek yaa ma gën a xam maa ngi ci kii yi rek ci kan ci côté maman Aris en tant que artiste comédienne nga ni koo faral musicien maa ngi gauche man maa leen ko wax dina waxaat si kanam keneen la faral tey lan nga yëg en tant que artiste comédien ak initiative bu nice bii nii waaw kontaan rek xam nga jógee tournage ma ne lu mu xat-xat lu mu xat-xat dinaa ñëw soutenir sama mbokk comédiens yi mm-hmm. parce que ñun ay comédiens la ñu bokk Arcos mm-hmm. xam nga mm-hmm. fii soo xoolee ñu fi dajaloo ñëpp ñii Arco Pikine Arco Dakar Guédiawaye Rufisque ñun ñu bokk Arco Pikine suñuy mbokk comédiens di jouer ñu war a ñëw soutenir leen leen parce que ñun lii leen am amuñu lu dul lii daal waaw. xamee ne musicien yi ak artiste la supporter musicien ak théâtre kat ñoom ñaar laa supporté déet kenn nga mën a supporté ah, man ñoom ñaar laa supporté awa léegi ku ci gagné baax na kon waa ku ci gagné rek baax na ah waaw fu mu toll nii dama kii dafa dafa dafa dafa teg ci temps El Vision waa nooy sooy sooso noonu xew ba muy moom ta nga nekk vedette ci biir nooy moytoo sa noonu waaw kon tey fii stade bi sànq wàcc na Zeyna maman Aris Awa Saw foto wuyu lu nga ko dundee tey waaw xanaa mbég ak neex ah neex rek laa ko dundee ndax man bi ma ñëwee fii euh, gis waa illusion Média fii dama ne kon vision bi nga xam ne loolu ndaam si ne ma koy nuyu waale muy DG bi kon vision bi muy wax dëgg la ànd ci contente bu baax ma ñëw fekk fii artistes yi mu nekk li nga xam ne dafa neex dëgg tollul noonu ah, léegi star nga de bu mag dafa am lu may yéem lu may dégg man te caméra bi moo jàkkaarloog yow man dafa mel ni yow cam micro bi bi ma téyee nii ak caméra bii patin yaay patin yaay borom dégg naa ñu ne yaa moom Elvision Média la. waaw non Elvision Média loolu waxatuñ ko. Mhm. El Hadj loolu daf ma coup d'état. dama ko financé. Mhm. jël sama xaalis jënd yëpp. mu coup d'état ma jël ko mais garaawul. kan nga faral. waa dëgg tollu noonu comme ni ma koy waxee saa nekk rek xale bi safi bàjjanam ndax nu roog papaam tagalu ma loolu maa ngi nii boo ma dëkkee micro bi nag dama koy miin parce que mooy télé bi xew ci jamono dëgg neexut Elvision nee naa leen ñu ngi ñëw ci seen kaw xoola duñu leen may zéro nga bàyyee ko Elvision amul solo amul solo ak xewee créé naa Elvision Elvision Plus. moom laa créé bàyyi ko Elvision créé Elvision Plus. xam nga Elvision daa xew si jamono. léegi su ko indee dañu naan dama koy toppandoo. ma indi Elvision Plus. jeex na tàkk kon daa hélas loo. ba tey moom Elvision. Ah, mais ku gagné rek. mooy loolu man man waaw mooy mooy soos noonu ndax ñu mën a wax ñaari wax da ngeen di wax ci ngeen faral waxal waxal. eh, eh ah. Ah. si kii lañ. kii daal. théâtre kat yi bu ñu gañee ñii ma par waaye yéen mais ñooy joueurs ñooy musiciens ñoo leen a football la waaw yàlla kon daal jàpp nga ne yow comédien ñooy gagné nii. par force xaaral ba kii kii ancien joueur la. yaa ko wax <laughs>